opération de déguerpissement tu li nga xam ne mooy ñiy lal ci kaw tali bi indi jafe-jafe loolu ci li nga xam ne ni mooy circulation bi tey monsieur le préfet wàcc sur le terrain moom ak ay njoñam ci li nga xam ne nii mooy woy takk der yi ak agent de sécurité yi ak ASP yi ànd ak ñenn ci ñoo xam ne tamit wéy nañ bu baax seeni xam-xam a ngi màcc ci wàllum saytu ànd ak ñoom nekk tey sur le terrain di xool ñi nga xam ni ñu ngi lal ci kaw tali bi pour jëm leen fee jëlee loolu nag liggéey bu ni mel préfet lancé woon na appel ni ngi ne démb ci crédit bi wax leen ne suba incha allah ci tey jeudi dina leen yëkkati ay bagages yu bëri yoo xam ne nii ay jumtukaay yi boroom lañ jël nañ leen dégager leen foofu ci ñi nga xam ne nii mooy ñu ngay lal ci buntu marché bi digganteeg tali bi nga xam ne moo jël dem ba hôpital tali boobu tey daanaka seet na wecc ñi doon lal ci tali bi di jaay dugg yëpp jëlee nañ leen fa boroom place yi boroom taabul yi ñeneen ak ñeneen ñëpp raxas nañ foofu daanaka ba mu set wecc ñu ne duñu yemale foofu liggéey bi ba tey liggéey bi day dem ca kanam maanaam dañ koy day am suivi ab topp boo xam ne ni monsieur la préfet da koy def ci li nga xam ne nii mooy population bu Diourbel ndax nee na suba incha allah dinañ ñëwaat saytu ba xam ndax ñoo ñuñ fa jëlee ba léegi dinañ ñu nga fa waaw wala déet ni noonu liggéey bi di wéyale ndega ni sax tey maanaam bi préfet di def liggéey bi li nga xam ne ni moo di auto sapeur pompier romb na waaye de moo raw autoroute à péage amul benn yoon foo xamee ne gisee nañ oto sapeur bi taxaw daanaka dafa dem rek dellu si waat ne xam ne liggéey bi ba léegi mu ngi dem monsieur le préfet sànni na ci kàddu waa tey ji comme ni nga ko waxee rek xëy si nañ tey quand même euh, ñëw si rue bi waaye lu jiitu loolu nag dafa amoon ñaari plan yu tëraloon loo xam ne yëpp mën nañ dugg ci euh, activité bi mën na ci dugg ba si jiitu moo doon plan d' action de lutte contre l' insécurité au niveau du marché Ndoumbé Diop boobu lañ njëkkoon élaboré amoon ay actions yi ci jotoon def ñaareel bi aussi foog naa ne fan yee passé ñu defoon beneen plan d' action de lutte contre l' insécurité routière si ñaar yëpp tamit dëppoo nañ ne yoon wi yoon wu sensible la ndax ñëpp xam nañ ne mooy desservir hôpital régional euh, jàmbat yi bëri woon na tamit ndax gis nañ ne perte de temps yi da doon bëri ci dem beeg dikk bi euh, te rawante ne nag euh, lu mel ni ambulance bi ndax xam nga ne moom doomu aadama mooy ngi ci biir ñu war koo sowee donc temps bu mu perte rek mun na indi gàllankoor. Euh, ñu commencé woon nag euh, opération bi tey mais laa lool démb lañ fi njëkkoon ñëw it waxtaan ak ñoom pour que kenn ku nekk xam ne yoon wi moom il faut que ñu bàyyi ko pour que dem beeg dikk bi gën a yomb euh, stationnement ba aussi ñu xaw ko ñu réglé ko mais tamit terewul gisoon nañ ne nit ñi ñu ngi ci trottoir yi kon tey li ñu defoon nag mooy ñu fexe ba dégager trottoir yi permettre que population yi nit ñi di dox ci trottoir bàyyi tali bi ak oto yi mais loolu tamit ñi nga xam ne mooy les acteurs concernés lu mel ni la mairie de Diourbel mais également les forces de défense muy le commissariat central de Diourbel li si des rek mooy après maintenant y aura un suivi nga xam ne dinañ ko jéem a def ba situation bi fi nekkoon bañ fi